bés bu nekk bu xale yi daan dal ci kaw ab Abdou juuf ma ni leen am na qualité de parce que lu ma ko tere mu bàyyi ko yàlla xam na ko te dan daan xeex guddeeg bëccëg waaye dana dana am ma ko lii mënul nekk mu bàyyi ko yàlla xam na ko toog naa fii mu bàyyile ma doomam ni ma na nga ñëw ca pale ba maye ko mbooloo sax du fa ñëw ndax xam naa ni soppaloo mbooloo waaye nga ñëw mayal ma sama doom bu jigéen wax naa ko Moustapha Bachir ba ne dana fa dajeeg yow bu ko defee juróom benn rekk la nuy doon te maire bi du jóob moo nuy juróom benneel ndax xam naa sa jikko ma ne ko bu ma ko defee yàqal la ma ne ko ndax ñi ma bàyyale seen doom fii tey soppee sëñ Babacar te ku ci ne ilimaan jëng dëkkal laa lay booleel ca jàkka ja mu may la bu ñu déggee ne maa ngi kërin kërin ngi jëm ca pale di maye ji ñu génnee ci man àdduna ak àllaaxira mu ne ma wax nga dëgg boobu gisuma ko woon mu génn ca te amul benn rancune toog naa mu téléphoné ma ni ma tey ñëpp a bëgg ma ni ko lu tax mu ni ma dama la bëgg a décorer te comme ñi ci présidence ñëpp sa xarit lañu ñoom ñëpp préparé nañu sa doom yeeg ñoom madame Ndoye ak ñoom Yacine ak ñoom Ndiir ak mu ni ma ñëpp préparé nañu seen cadeau nga ñëw ma décorer la ba ñëpp xam loo doon ci man Je ne ko kon du homme. muk, ne ko lay woutal ay non je bu ko def mu comprendre ci Je sa mu yónnee si ma médaille un certificat ba xam ni ko wax mooy dëgg toujours non, la daf koy bu ko defee yu mel noonu loolu rekk la ñu séq ak ñoom wax wax leen lu nu xam lu rafet waaye xëccoog ñoom pouvoir du nu ko def yàlla xam na ko